kuñ ci fistisé wu tamit mooy man benn affaire bu ma ci gën a ramaa damay wax en tant que observateur mm-hmm. boo xam ne tey am na ci parce que tey Ndeye Khady Ndiaye moom accusé la dañ ko accusé comme Ousmane Sonko mm-hmm. donc benn instant gis nañ am na ay avocat am benn avocat maître Balde l'excellent maître Balde boo xam ne moom moo constitué woon depuis le début mm-hmm. donc ñoom bu ñu demee ba nga xamante ne affaire bi toll na fii moom femme la xa moom jigéen la xamul dara yaa ngi tey waroon nañ ko mun a assister. dañ ko abandonné tey bu ñu ko assister woon je pense que tey situation bu mu nekkoon dafa nekk parce que tey gi nga nit dina wax ci benn affaire foog ne moo ngi génne boppam sax fekk moo ngi dugal boppam. xam nga yooyu noonu yëpp cest à moo tax am na benn journal bu titré tey ne Ndeye Khady Ndiaye sacrifice. c'est ça dañ ko waroon dañ ko waroon a assister comme avocat devait ak tey xam nga moom avocat avocat Ousmane Sonko yi situation def délégation par kii nii. Mm-hmm. avocat mënoo koo délégué mu ñëw mu ñëw assister la. mënul mm-hmm. nekk il faut ki nga xamante ne moom moo nekk auteur principal bi ki ñuy topp mu ñëw nga doog ko mun a assister. Mm-hmm. donc Ndeye Khady Ndiaye je pense que tey waroon nañ ko mun a taxaw. assister ko tey comme amoon nañ ay avocats yoo xam amoon nañ accès depuis le début même bu nekkee am nañu constitué wu bees. je pense que waru mën a nekk prétexte. parce que juge bi tamit